bismillah mu ne wa taksiru rakaati taaniya ak gàttal raka bu ñaari nga am ula ci bu njëkk bi raka bi nga jàng sa saar bi nga jàng sa raka bu njëkk bi moo war a gën a gudd saar bi nga jàng sa raka bu ñaareel bi fii nag ñaari saar moo fi am mooy saar bi bi nga jàng sa raka bu njëkk bi moo ko moo war a jiitu saar bi nga jàng sa raka bu ñaareel te moo ko war a gën a gudd tamit moo tax am na ñaari am na ay saar yoo xam ne mënuñu daje ci julli ay saar yoo xam ne mënuñu daje ci benn julli
comme nga tàmbali jàng waaw rek ñaar comme ba deuxième bi nga am ngay jàng wallahu ahad soo ko jàngee si rakkaab bu njëkk bi rakkaab ñaareel bi moo jàng tabat yadaa ah moo jàng tabat yadaa xoolal bi naa fi mën a jàng wala xoolal bi falak waaw même bu rakkaab bu fekkee moo jiitu fekkee saar bi moo jiitu ah fekkee saar bi moo jiitu sa saar bi nga jàng si rakkaab ñaareel bi saar bi nga jàng si rakkaab njëkk fekkee moo jiitu saar bi nga jàng si rakkaab ñaareel bi waaye saar bi nga jàng si rakkaab ñaareel moo gën a gudd mënoo ko jàng dégg mu ne wa taksirul julusi ul awwali ak gàttal toogaay bu njëkk bi ani saani si toogaay bu ñaareel bi njëkki noonu toogaay bu njëkk bi te mooy taay bu digg bi toogaay bi nga fay toog moo war a gën a gàtt que toogaay bi ngay toog si taay bu mujj bi taay bu mujj bi moo war a gën a gudd li nga fay jàng sax moo war a gën a gudd ndax ginnaaw ba nga jàngee taay pare danga si teg salaat fatiha wala salaat ala nabi wa qawl rabbana walakal hamdu ak wax rabbana walakal hamdu lil ma'mumi ñeel ma'mum inda qawli imam si xas waxu waxu imam sami'a allahu liman hamida sami'a allahu liman hamida ma'mum bu imam waxee sami'a allahu liman hamida moom lay wax rabbana walakal hamdu wax ñu koy wax tamit ngëneelu wal fadli ak yu julli moom dong baadama yaquluha ginnaaw bu mu ko waxee ginnaaw ba mu waxee lan sami'a allahu liman hamida li doon tamit ma'mum te bu fekkee da ngay jul yow dong ñaar yëpp ngay wax da ngay wax sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wa tasbih ak sabal fi ruku si ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi gënal wa sujud ak sujud subhana rabbil ala wa bihamdihi wa tamin ak wax amin si ren si yàllu waaw ndax tamin gi nag si ren gi mooy ngir Maalik mais ngir Shaafi'i yi ñoom si kaw la koy wax ak yéen ngir yi ndax yéen yi dafa ne ida qaal imam wala dalin faqulu amin ayeti nag su waxee dafa ko wax faqul wax leen amin rek waxul da ngeen ko wax nànk waxul da ngeen ko wax si kaw waaw nag ku nekk nag ak ni nga gisee ni nga déggee moo tax maalik ne nañ ko wax suuf yéen ngi ne nañ ko wax si kaw ñu nekk suñu ngir nànk la koy wax wa tamin ak wax amin si rek si yàlla wa moom xawlu amin mooy wax amin tamin mooy amin mooy yàlla yàlla nga nangu si ñaan loolu lay fi baadal faraari ginnaaw noppi nel fatiha di si fatiha bil maddi si xëcc ma taxfiifi ànd ak woyofal ismullahi tur yàlla bi taala bu kawe bi mu ne wa nuunuhu nuunu amin nag man mu mazmuumatun lu ñuy damm la waaw amiin ala ni daay si woote ak taqdir li ñu ci nattale yaa amiinu dañ fi moo moo moo fa nekk mooy yow yow aju nangu ñaan gi yàlla nga nangu sama ñaan waaw ñu ne amiin waaw mu ne nag da nga koy xëcc na amiin moo tax yéen mu ne ku sa amin tolloog aminu malaaka yi tombeeg aminu malaaka yi yaa dina jéggal sa bàkkaar jiit ak ñun man waa faqa taminahu taminu malaaka malaaka mu ne yaa amin yow amin yow yàlla istajib yàlla nga nangu doa ana suñu ñaan mu ne walaa yu amin du wax amin al maamum maamum xalfal imam ginnaaw imam fi jëhi julli biral mu ne julli biral maamu walaa yu amin du wax amin al maamum maamum xalfal imami ginnaaw imam fi jëhi yëti ci julli biral illa ida sima loolu dafa dégg qiraatahu jàngam imam fekkee même fekkee day julli julli biral te li muy jàng déggoo ko nga nekk si ginnaaw ginnaaw doo wax amin wal xunut ak wal xunut ak xunut tamit ngëneel la si suba si suba faqat doog moom suba doog la koy def suba doog la koy jàng baadal faraag ginnaaw nopp mi la salaati si jàng si rakaat si saani si rakaaw ñaareel ginnaaw ba nga jàngee fatiha ak saa ba pare avant nga rukkoo xabla rukkoo bi jëkk ngay rukkoo nga koy jàng si leen ci jàng wala bu fi baat ya waxu mu ne allahuma yow yàlla innaa naka ñun nasta'iinuka ñu ngi sàkku sa ndimbal wala sàkku ko ñu ngi sàkku sa njëggal wala ñu ngi gëm bi ko si yow wala tawakkal ñu ngi wëkkeelu alayka si yow si lépp tegal nga sa loxo doyloo nan la wala si ñu ngi tagg alayka si yow alxeer yiw kulli bi lépp kulli yiw yi ñuy defal yëpp ñu la siy tagg nashkuru ko ñu ngi lay sant wala nag ñu tax sa duñ la weddi mukk wa nax na ñu ngi toroxlu la ko ñeel la waaw wa nax na te toroxlu mu ngi weesu dëpp sa jëf si suuf wa nax na ñu ngi suñu mbubb bul mbubu diine wala su ko ñu ngi bàyyi man képp koo xamante ne suñ ko weddi na la képp ko la weddi rek noonu nan ñoom noonu nan bàyyi nan ko toogoog nan ak moom allahu yàlla iyaak yow dong naabudu la ñuy jaamu wala ko yow dong nastami la ñuy julli suñu julli bi ak suñu jaamu yàlla bi yëpp yow dong yaa tax wala suñu ñu ngi si jóot wala suñu te yow tamit te te yow dong moo tax tey ñu ngi si jóot way lekk si yow la saa la ñuy dox way lekk wala saa ñu ngi dox i lekk jëm sa yow wala si li ñuy xàndaa ñu may def tànk neen nar ju ñu yaakaar xamante ko seen nañ la wana xaaf ñu ngi ragal adaabaka sa mbugal al jidda ba aji tar ina adaabaka naka sa mbugal mooy xasan aji aji yëg la lil kaafirina si way weddi yi waaw loolu may loolu may xonut ñu ngi koy jàng si ñaari rakkaa ci suba ginnaaw ba nga jàng saat ak saat def ngay du ko mën a wat du aaw ak ñaan baada tashahudi saani ginnaaw taaya ñaareel waaw ginnaaw taaya ñaareel tey ginnaaw ba nga taaya pare doo bëgg nga ñaan sax say ñaan sa aajo nga ñaan ko fa li la metti say say njàqare yëpp nga ñaan ko fa yàlla ñaan bu koy ñaan nag dañ ko dañ ko sopp wa taqdimu ilayhi ak jika si ñaan loxo xiina yëf yi jamono jooy rot bihima si ñoom xiina yëf yi jamono jooy rot bihima si ñoom ñaar li si judi jëm si jot ala dog ko tey yi teg si sa ñaan ba ci woowu sooy si jot ah loo bëgg nga jiital sa ñaan loxo doo ba ci woowu doo ko ñëw wa taqdimu rukbatay ak jiital ñaar ba ci woowu yi ala yi teg si ñaan loxo yi indal qiyaama jaw na jub soo jub tamit soo jugee si si jot di jëm di taxaw loo bëgg ba ci woowu njëkk a jub ah loxo doo doo si tamit mu ne waa aqdul xinsari ak fas baaraamu xinsar mooy baaraam bi wal bin fas ak baaraam bin fas mooy bi xin fas mooy bi waaw bi mooy xin far baaraam bu ndaw bi waaw bin far mooy baaraam bi wusta mooy baaraam digg mooy bi ah min yet yi ndax loxo nay joor bi li ngay def maddan mbir mi aji tàllal ak sa baab sa baaraam sànnikaay ba ñu koy def ba ñu xaar ak baaraam boobu min haa si moom fi tashahud ni si ñaari kaay man wa yuharriku mu yëngal ak sababa sa baaraam sànnikaay ba def ni benn nga yëngal ko mu jugee si kaw di wàcc wala mu jëm nday joor jëm jugee càmmoñ jëm nday joor nii dañ koy baax man wa yaataqidu ma fas nag bil ishaarati si junj gi bi haa bi haa si yëngal gi annaha naka moom de mitraratun mbolde la booy dóor li seetaan ñeer seetaane yëgal ñu koy yëgal nag da nga ciy yéene da nga ciy fas ne mel na mu muy mbolde boo xam ne da nga koy dóor seetaane soo ci fasee loolu mu mel ne mu mel ne mbolde booy dóor seetaane man waaye surtout mu tàllal ay saabu càmmoñ ba waaw wa wadu yéene ak teg sa ñaar loxo alal du ba tey ni si kaw bati sa kaw bati woom fi ruku si ruku waaw si ruku tamit sa ñaar loxo nga teg ko si si kaw bati woom beneen la wa waduhuma ak teg leen ñoom ñaar xadu udunayhi ban tolloog ñaari nopp ya aw qurbahuma wala ñu jege ñaari nopp ya fi sujud si sujud say sujud tamit si ñaari loxo nga teg leen ñu tolloog ñaari nopp nii wala ñu xaw ko jege wàcc nii loolu tamit dañ ko sopp mu ne wa mujaafaatu rajuli ak yërele wa mujaafaatu rajuli ak yërele góor fi sujud si sujud bayna rukbatayhi diggante ñaari bët woo moom yëpp wa bayna mirfaqayhi ak diggante ñaari conc ya wa janbayhi ak ñaari wàll ya wa bayna fakhidayhi ak diggante ñaari lupp ya soo sujjóotee góor noo bëgg si sujjóotee ah bët woom yi mu yëreele ko waaw conc yi ak wàll yi mu yëreele leen mu bañ leen def nii mu def leen nii mu yëreele leen solo leen lupp yi tamit mu yéene ko ak biir bi sa sa fii bañ a laal fii ñu solol mu ne wa takbiru ak kabaara inda shuruci si fas xaraf si afaali salaati si jëfi julli yi waaw illa fi takbiratil qiyaami nga rek si kabaaru julli waaw ñu gis ne tey ni bàyyi ko si ñaareelu nga bàyyi ko si ñaareelu rakkaay waaw dama bëgg tamit jëfi julli yëpp soo koy def jëf ji ak kabaar gi ànd soo du ko kabaar gi ak rukkoo nga ànd naan allahu da nga koy yóbbaale doo si gis rukkoo mu ànd ba mu des kabaar fil itnatayni mooy soo taayee soo taayee digg ba pare ba jug taxaw soo bëgg nga xaar ba jug taxaw ba temb doog wax allahu akbar moo tax mu ne il mu ne fa innahu naka moom yu kabiru xaaj dina ko kabaat baadama yëpp tawi ginnaaw ba mu yemoo ko man dañu taxaw mu ne wat tawal rukku ak pooju fil julul seen si ñaari toogaay yi wa bay na sajdatay ni ak diggante ñaari toogaay mooy toogaay bu njëkk bi ak toogaay bu mujj bi wa bay na sajdatay ni ak diggante ñaari sujjóot yi ñu ne ko lan may pooju mu ne waxu moom pooju soo ko xamul ak yuf ak yuf biya mooy mu gën na ne bi wari ki yi si xottu tatambaal ay seen bay bay càmmoñ yàlla àll si suuf mooy sa xottu tat yi ñu koy teg si suuf ah mooy yëpp ji mu génnee rijile yi ñaari tànk ya jami an mboole seen min jaay ni seen ay man si wetu ndeyjooram da ñaari tànk yëpp ñu génn si ko ndeyjoor sa xottu tat bi tegu suuf def nii mu ne wayeef ni mu lem ak yu saabu càmmoñ bi li mooy càmmoñ bi saabu càmmoñ da nga koy da nga koy lem mooy gaaw mu teg kër yi ñaari seen xam ni ala faxidayhi ci kaw ñaari luppam mu ne wat tayaamun ak ndeyjoor bi salaami si sëlmal dañ ko sopp si sëlmal tamit ah nga njëkk a sëlmal sa côté ndeyjoor nga ndeyjooru mooy nga tourné tuuti ne asalaamaaleykum nga bañ a ñii rek nag asalaamaaleykum mu ne al bi salaami si sëlmal al mafuudi bala bi ñu farataal li kulli musallin ñeel képp kuy julli mu ne waxoo moom ay yashir mooy bu mooy mu junj bii la si si boppam xubaalata waji yi fa jono xaru kanamam mu ne wayte yaamanu mu ndajoor bi haa ci moom xëy na lu néew mooy nga junj sa bopp da nga junj rek nii salaamaaleykum waaw ba xay si sara fu mu fu mu fu mu fi gisee safxat waji yi lexu xaru kanam ga xam nga soo defee nii ñi nekk sa ginnaaw duñ gis sa lexu xaru kanam wa nazaru ak xool ila mawdui sujudi si bërëb sujud fi xiyaam yi si taxawaay ga li ko noonu soo taxawee bul xool bul bul bul julli fu nekk nga nga fu nekk nga fu nekk nga fay xool doo boog say say julli fi nga xamante ne fi ngay teg sa jë nga sa bët yi nga teg ko foofu waaw wa mubasharatul ardi ak jojon teg suuf si waaw aw ma aw ma waa li nga xamante ne tumbituhu bil wajhi wal kafi mu ne aw maa wala li nga xamante ne tumbituhu na ko saxal bil wajhi si xalu kanam ga wal kaf fay ni ak ñaar tenq ya te mooy te mooy sa jë ak sa bakkan say si jóot ñoom ñaar ñoom ñaar doom ñoo tegu si ñoo tegu suuf ak sa ñaari tenq moom tamit sa jun dama bëgg ñu jun doon teg suuf si tegu suuf wal machi ak dox ila salaati jëm ci julli bi waqaay ci wegeel ñu ko sopp wa sakinatin ak dal nga parax paraxe waxti daal waxti daalu suuf si ak yamale sàppe yi sàppe yi tolloo jub ko tara ko tasmiyati ak bàyyi wax bismillahi fil faydati si julli farata waaw nee nag dañ ko sib si ngir Malik ñeenti wax moo si am karahatun ibahatun nadbun wujubun madhabu Malik xawaha yaa xabibi am na ñu ne dañ ko sopp amuñu ne dafa war amuñu ne dafa dagan am nañu dem sa sib fekkee nag ci tarixa bi nag wax ini bismillahi rahmaani rahim si si julli farata waa waajib la si dafa war mu lënkaloog mu lënkaloog alhamdulilah rabbil alamin wa zikru ak zikkar baada salaam ginnaaw sëlmal mina salaati si julli mina salaati bàyyi ko si julli ginnaaw ba nga sëlmal si julli tamit bëgg na nga zikkar ngir azkaar yi si ay zikkar alwaayidati yu ro yu yu yu root yoo xamante ne jëlee na ko si yonent bi yoo xamante ne moom yonent bi si jullee pare mu nga gaa jàng xeeraat ay kursi kon jàng ay kursi ginnaaw nga sëmale wa tasbih ak sàbbal salaatan wa salaasin fanweer ñett wa tahmid salaatan wa salaasin wa alhamdulilah salaatan wa salaasin wa subhanallahi fanweer ñett alhamdulilah fanweer ñett allahu akbar fanweer ñett muy muy baax ak ay xaaj moo tax mu ne wat tahmid ak sant yàlla salaatu wa salaatu wa salaam ñett wat takbir ak màggal yàlla salaatu wa salaatu man allahu akbar wa xatim ya ak mottale téeméer ya bi laa ilaha illa allah soo paree da nga wax laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir benn yoon ñu mottale téeméer yi